waxtaan ngir ñu daal ñuy gindi ci li nga xamante ni indi nañ ko ci ay euh, programme ñaatam euh, ba sànq ñu ngi doon wax ci wàllum euh, rubrique décomplexé jàpp sa fula nee nga da nga seeti kenn ku tudd Seyni Baas basketteur la benn loxo la yor di ko basketé mais tey jii la gën a xarañ ca la muy def. dëgg la ba ma lay nuyuwaat téléspectateurs yi di bàyyi rek ñu seetaan Seydi Baas comme ni nga ko waxee léegi dëkk Padois bu ñu dellusee waxtaan li nga xamante ni moo ñu yóbbu ci moom ba tey Padois. ba basket mais man chaque matin comme ni ngeen ñëwee ni fi laay ñëw di entraîné chaque chaque matinal moo fekk kenn nag parfois nga ñëw fekk kenn mi parfois du fekkee mi fi laay ñëw di entraîné chaque matin bon nekku maa maa ngi ci équipe mais compétir parce que sama sama compétition moom mu ngi mu ngi dépendre ci niveau euh, fédération ci ñoom la la dépendre parce que fekk ñu valide ñu valide ma rek ma kii mais teewul aussi maa ngi ci sama yoon di bay di di bay sama waar xaaruma xaaruma fédération walla genre mooy sama yaay parce que tëj la woon peut-être mën naa ne foofu la ma sang bi duggee bi ma nekkee xale tamit ma koy ma koy ma koy foowee mhm. xam nga ma demee ba nekk mag ba ba xàmmee dëgg ràññee ma def ko sama sama sama passion ndaxte musu munuma munuma beneen métier lu basket yàlla lii rek la ma mën loo mhm. loo loo xam te ni su ma koy def doomu doomu aadama yi yëg-yëg biñ ci am mhm. amaa ne man yëg-yëg boobu boobu lay am koy par benn loxo moo jaaxal ñëpp mais man mooy seen mooy seen mooy seen faible bi ñu may xoolee. loolu mooy mais man moom mooy seen fort quoi. maanaam benn loxo boobu moo ko ci bëgg parce que mooy feeling bi moo tax tey ñëpp di ma ci naaw. ñëpp di ma ci bëgg ñëpp di ma ci encouragé et que ma ci am tamit ñoo xamante ne carrément maay seen idole ci loolu noonu donc sant yàlla daal waaw peut-être fédération ñoom ñoo defagul loo xamante ne war nañ ma mën a accepté xool ba xam ndax waa ji li ñuy wax dëgg la wala dëgg ndax nit ki tamit muñ la ne mënul wala dafa am lii rek te te testé woo ko foog nga testé ko nga xool ba xam parce que y a des yoo xam ne fii Sénégal su ma su ma leen mënul ñoo mënuñu te du du man dong wax ñi may joué ñu bëri y a des pivots fii Sénégal ñu ngi joué championnat man ñoom mënuñu ma te amaana ma sax. mais joué naa ak ak ñoom ci ay match ci ay match ci ay match yu métti musuma joué musuma joué match bu yomb ci ay match yu métti yoo xam ne dama koy joué ak ñoom dama koy nekk ak ñoom et que pour affaire de nit ñi jàppale ma aussi bu bu bu waree am dama koy bàyyi ci ci ci ci loxo sénégalais mhm. ndaxte tey jii nii nga gis nit di def dara un jeune comme Youssou Ndour li mu wax nee na xale yi nañ nañ jug liggéey mais liggéey leen mais xale yaa ngi liggéey mais tey un un jeune comme comme moi tey war a xale sama yoon pour dem mais képp ku ma gis di nga xam ndax ci dañ ko war a jàppale wala waruñu ko jàppale man su ma waree jàppale rek ñoom xam nañ su ma a jàppale tamit ñoom xam nañ donc lépp daal bàyyi naa ko seen seen seen loxo daal ci bu ñu ma waree jàppale ak bu ñu ma war a jàppale parce que man maa ngi sama yoon maa ngi koy xàlli leeragul nag mais les bonnes volontés ñi nga xam ne ñoom xaal nañ seen yoon ba mu leer nañ ma aal ñoom li ñu xaalee seen yoon wala ñu dénk ma ko ma xaale su su ma paree delloo daa leen ko delloo d'accord ma ci loolu nga am laago bàyyi sa bopp wala nga am yàlla yàlla suñu borom teg la benn natt nga bàyyi sa bopp man lii judduwaale moo ko judduwaale moo ko daf ma dab mais tey jii nii da nga gis koo xam ne da ko judduwaale ou bien da ko dab mu découragé bàyyi addunam carrément di toog seen seen seen kër parfois ñu ñàkkal ko fayda wala genre non non bàyyi loolu du toog maan jugal nga dem nga ñafe adduna bii boo ñafewul kenn du la dimbali kenn du jàppale kenn ci toog ci ay ruux loolu suñu borom rek moo ko mën da ngay jug nga ñafe na bii nii boo ñafewul kenn du la teg bët man ñafe moom moo may lii tey bàyyi TFM ak keneen ak keneen ak keneen ak yeneen télé di ma di ma gis sama ñafe moom ko may ba tey Père Amadou gis ma di ma jàppale boole mag ay télé ak sant yàlla la kon man ça veut dire que ñaataam di di xoole wala ma toog di làqam sama biir sama yaay aussi ma koy sant ci koy boobu ndax musuma làq musul jël doom naan da koy làq pour bañ ñu ko gis wala su ma dem terrain vraiment toogal genre musul am su ma dem terrain jugal dem la may wax c'est heure entraînement jot na àndal ak say morom la dem la entraîné ci kon may na ma espoir bi bi tax ma war a mën a def moom li mu li mu doon def donc aussi réussite laa ci ñaan yàlla ah. mm. réussite bu baax laa ci ñaan yàlla pas niveau Sénégal mais niveau international te loolu noonu maa ngi koy ñaan yàlla te gëm naa ne dina ma ko may incha allah. incha allah dañ lay encouragé bu baax a baax ci remerciement yooyu sax la ñuy desal sax. tey. bon damay remercier tey people Sénégal. tey ñaataam dañ ma dañ ma may doole. Sénégalais tey dañ ma may doole doole bu ma bu ma amul woon ñoom moom loolu dañ ma may nit nit di dem di wuti ci yeneen dëkk man sama réew daf ma ko may ñu samay xarit yee toog tey jii nii dañ may dañ may jàppale ci lu bari samay mag maam libaas samay mag ñëpp libaas loo xamante ne musul daw ci dara lu ne tey daf ma ciy de waaw daa fashion aussi du ma ko du ma ko fàtte parce que li ma def nii dafa rëy trop parce que Seydina Limamou dafa rëy trop trop sama xol dafa sedd ci waa Sénégal su ma limee damay juum Chérif xam nga Alaaji di Jeesa ñoom ñëpp samay gaay lañu wax. voilà l'histoire de Seyni euh, euh, franchement euh, nekk na li nga xamante ne touché ñu touché nañu. nekk ndaw nekk basketteur mais gis ngeen ko benn loxo bi moom lay rek daal di jouer niveau international lay rek daal di xëccu ambition dafa baax ci nit ñaatam. dëgg la dafa baax ci nit jënd ba a chaque fois sooy def rubrique yu mel nii. ñii mhm. ñooy tax yow sa xol di gën a gën a dem ci liggéey bi parce que nit boo ñëwee di ko di ko wanale ak askan wi mu wan la ne man damaa gëm sama bopp. loolu dem seeti ko te man loolu laa gis ci Seyni Bass may profité de l'occasion di ko souhaiter joyeux anniversaire ah, tey la anniversaire ah, et puis yaayam moo doon basket donc yaayam moo def loolu ci moom xañ na la fekk mu koy gis mu doon basket yooyu waaye tamit nee na yaayam ak ay xaritam ñoo ko dooleel ak waa Sénégal parce que bu ñu demee ba nit ñi di fay xaalis ak nit ñi di di di jël seen temps dem di ko seetaani avec plaisir ñu war a mën a xam ne kii li muy def mën na ko donc mu nekk xale boo xamante ne ni ci feebar la ko jële judduwaalewul ak moom moom ci boppam euh, bu toogee sax danaan ma man yàkkamtiw ma mhm. li ma bëgg ci sama sama sama dund mooy lii maa ngi ciy liggéey bis bu nekk parce que am ambition euh, mënul weesu ngay xëy le matin euh, di dem di entraîner te kenn du la yóbbu amoon entraîneur amoo dara yaa yóbbu sa il ne fait que dans sa vie loolu lay def di nekk loo xamante ni également nee na ma nit ñi dañu dem ba ñu ko xam ci moom bari nañu parce que footballeur yi basketteur yi nga xamante ni dañ ci ay dañ leen a ñu xam leen ci àdduna bi dañuy ñëw di ànd ak moom di def ay ay entraînement kooku xam na li muy def mais nag bu ñu xoolee ni ñoom mënuñu ko dugal ci seen équipe parce que li muy dund ak laago moo tax am na ñeneen ñoo xamante comme ni nga ko waxee léegi mhm. équipe la euh, dañuy am seen ay ay équipe yoo xamante ne ñiy dund ak laago ñoo fay nekk donc ñooñu mën nañ ko jàppale waa handisport quand même euh, mën nañu jël li en charge waa handisport bien sûr bien sûr war nañ koo mën a jël je sais pas ndax ba ah, ñoom ci euh, am nañu am nañu branche basket mais je pense mhm. quand même war nañ ko jël en charge dëgg la parce que mën nañ quand même am nañ ñu dem jëli ko parce que dañu bëgg koo xamante ne ni tey jii gis nga ko ci télévision bi contact yaa ngi fi mën nañu jokkoo ak moom mën nañ jokkoo ak yaayam mais également mën nañ dem seeti ko parce que moom nee na waxu waxul sax nga ñëw ni kii am na wala ñu koy jàppale di ko dimbali naan kaay leen mais ku ci nekk boo xalaatee ni mën na ko rek nee na ñëwal mu wan la ni mu mëne mhm. moom loolu la wax nee na nañ ko jox rendez-vous mu ñëw toog wan gaa yi nan la mëne donc looloo tax tey ñu dem seeti ko mu nekk jeune boo xamante ne ni day def basket di dund ak laago nekk koo xamante ne ni ku gëm boppam la nekk koo xamante ne amul benn complexe ci li ko dal mhm. di dund ak laago ba pare di àndandoog say xarit yoo xamante ne dara jotu leen te bu ñu duggee ci terrain basket nga mën leen mhm. bu ba dañuy sant bu baax ki ne mooy Bijou Ndiaye ndax moom moo gisante ak daa fashion mhm. daa fashion di magu ki nga xamante ne mooy Seyni Baas moom moo ñu jox contact yi ba ñu am mbégte dem seeti ko donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax en tout cas c'est soutenir euh, Seyni Ba j'espère que le ministre des sports euh, kon mi ngi seetaan euh, yeewu leen wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay jege ñaaleem di seetaan émission bi ñu yeggee ko li nga xamante ni moom mooy yëfi Seyni Ba mhm. parce que yaakaar naa ne am laago waru laa mën a tere kon def li nga xamante ni moom ngay def surtout que moom mi ngi rek daal di viser donc benn carrière internationale kon di ko ñaana rek peut-être yàlla jàppale ko ci bu baax a baax. dëgg la Dieng yaayam mi nga ni moo ko doon jàppale bu baax a baax yóbbu rek euh, ci mbedd mi yaakaar naan ci biir kër gi lay commencé mhm. parce que yéen ñi nga xamante ne a nekk ci biir kër gi seen doom di dund ak laago euh, da nga koy won ni ko yow ñi fi nekk yéen a yam mhm. mais boo nekkoon ndeysaan wala yërëm leen ko jox leen ko ban bu muy toog bàyyi ko mu bokk ak nit ñi mhm. fu ñuy lekkee bàyyi ko muy bokk ak nit ñi di seetaan télé bàyyi leen ko bu bëggee dem ci ay moromam mu dem ci ay moromam day tax ba li mu nekk daf koy gëm parce que yàlla moo ko bind te comme ni ñu waxee ku ci nekk am nga laago ñun ñii rek ku ci toog si yàgg nga fattu ci sa bët rek dootoo gis ñoom tàmm nañu ko ndax loolu la ñu judduwaale ñii ci feebar lañ ko jëlee mm. donc nañu bàyyi xale yi ñuy nëbb te génne leen ñu dem ci mbedd mi nekk ak seen ay morom ndax loolu yàlla moo leen ko teg te dañ ko war a nangu oustaz waaw man li ma siy sof rek ñaatam euh, bu baax mm. ndax rubrique bi dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla ñëpp a koy rafetlu mm. xool ñi nga xam ne suñ boroom daf leen wàññi mu jël leen di leen fësal ñi nga xam ne soxla nañ seen dimbal ñu dimbali leen mais kii moom moom macha allah moom xaarul kenn te wax na ko ñëpp dégg ko ndax njàmbaarteem ak am waajur bu koy jàppale. Mhm. beneen bi mooy nit ñi nañuy bàyyi xel ne ñun ñëpp laa wax. Mhm. ay handicapé en sursis mhm. nit xëy na di dox ak ay ñaari tànkam gont bu bu dañ ko bu dañ ko yëkkati. mbaa ñu teg ko si fauteuil mbaa yeneen ak yeneen mën nañ si tudde citer tant d'exemple kon nit ñi nañuy bàyyi xel toujours ñi nga xamante ni yàlla daf leen teg xeeti nattu yi ndax nattu moom tànk yaa ngi dund du wees dañuy ñaan rek yàlla di ñu dolli sutura. ndax ay doomu adama lañ comme ñun xëy na sax fañ yàlla sax yàlla mais yàlla la neex rek mu dogalee noonu kon kii ak ñi mel ni moom ñi ko si soxla te yaakaar ko nañ leen dimbali te yàlla rek tax ndax am na foo xamante ni nañ ko wax tamit tadee mm-hmm. ñu ngi fay dugal xaalisu askan wi te waru fa mm-hmm. nañ ko dimbaleen ñi mm-hmm. loolu moom mooy dëgg tout à fait mais surtout waajur yi tamit ñuy gën di encourager euh, seen ay doom doom yi nga xamante ni ñoom ñoo am laago du nga ko oustaz euh, waxee ñun ñëpp kon ay euh, kon dañoo nekk ay handicapé en sursis parce que mën nga xëy ne cooc après nga dox benn waxtu rek rek am kon euh, lu la dab kon ci yoon wi kon nañ ci rek daal di bàyyi xel en tout cas merci ñaatam et félicitations merci, pour merci le contenu bi nga xamante ni yaa ngi koy indil euh, lii di euh, kon sa rubrique décomplexé jàpp sa fula ci yeewu leen tous les vendredis sànq maa doon wax